ahlan bikum xàttekat ba ñuy wax saaba si fay fay na Ousmane Sonko àq ak yelleefam te mooy delloowaat ko ci liste électorale yi yéene kaay yi tey presque ñoom ñëpp fa ñoo xëy di wane photo Ousmane sonk buy reetaan Ousmane sonk mu yëkkati ñaari loxoom lépp ngir wane mbégte ak ndam lu rëy li Ousmane Sonko am ci kaw nguurug senegaal niki démb ci ëttu attekaay bu diwaanu Ziguinchor yaw seetal Walfadjri yéene kaay fa wax na xàtte àttekat ba fa santaane ne Ousmane Sonko nañ ko delloo ci liste électorale yi Dakar presse yéen kaay ne ndam lu rëy ngir Sonko Les Échos yéen kaay ne àttekat ba kay fa jox dëgg Ousmane Sonko te mooy ne seppi bi ko état bi seppi ci liste électorale yi du dëgg du yoon bés bi yéen kaay ne Sonko fa xam ndam ca fa mu dëkk te mooy Ziguinchor ba tax na mandataire bi tey ci àjjuma ji fay dem jëli si parrainage am yi Vox Populi ne àttekat ba fa delloo si Sonko ci yëf yi nguurug Sénégal fa ñoo lajji audience fukki waxtu ak benn fay santaane ne Sonko nañ ko dugalaat ci liste électorale yi léeg si ko yéen a kaay ne avocat Ousmane Sonko maître Ciré Clédor Ly nee na tey jii ci ajjuma ji ci la Ousmane Sonko di jëli fiche parrainage am yi tàmbali campagne parrainage am le quotidien yéen a kaay ne hé Ousmane Sonko bokkaat na ci course bi de ndax seppi radiation bi ñu ko defoon xàttekat ba fa koo neenal source a yéen a kaay ne état bu Sénégal fa ñoo daanu ñaari yoon yaaw fa ngay xool seppi radiation bañ defoon Ousmane Sonko attekat ba fa koo neenal benn ñu ne déetawaay bu fa nekkoon ci atte ba fa wax ne daal attekat bi fa xam rakkam joo xamante ne adjoint au maire la kon daal moom warta mën a atte yëf yi waaye attekat ba faalewu leen sax fa def la muy def te mooy joxe dogalu atteem yéene kaay bi ne waa DGE mooy ñu yor wàllu wote yi te ñu tere woon Ousmane Sonko na ko duñ la jox say fiche parrainage ñooñu def fi mu toll ni fa mel ni daal fañ leen a xëpp ndox mu sedd guy ndax lañ defoon yëpp attekat ba fa koo dajj ba mu sedd wecc te mooy yéene kaay nonoo démb tribunal bu Ziguinchor la fa na ci liste électorale li ni mel nag mel ni nguur gi fañ leen a tëgg mbéj de ndax dogalu atte bi baaxul si ñoom yéene kaay bi ne waaye li attekat bi def fa siggil ëtt attekaay bu Sénégal ndax attekat bi yoon la atte laas yéen a kaay na leen xée faa leen di wax attekat bi gis ngeen kii fa ñàkk caaxaan faa leen di fàttali moom saaba si fay mii moo fi atte woon da Ndiongo ba bàyyi ko mu dem ñibbi këram ginnaaw gu ñu teg ko ay daan te moom attekat bi taalibe Cheikh Mouhidine Samba Diallo la bu bamba Bambara ca Kaolack si du quotidien na ko moo taxit attekat bi tribunal ba fa bañ ba tëdd ca naaj wa ne Sonko kenn du ko génn ci liste électorale yi ndax du dëgg du yoon l'observateur ne njiital ko seppi ci liste électorale yi attekat ba mu nekk ndam loo xam ne taxu wut yëf jeex de ndax état bu Sénégal seeni avocat fa ñoo wax ne fa ñu yóbbu yëf yi ca beneen ëtti attekaay maanaam fa ñu dem cassation ñu attewaat leen yéen a kaay bi ne kon nag sa cour suprême fa la cooki fen di xamee maître Adama Fall kenn ci avocat état bi ne attekat bi lii mu atte tooxi doon rawut ko ndax Ousmane Sonko mi warta bokk fañ ko war a génne ci liste électorale yi moo tax attekat bi tëddeewut njaaxaanaay ma ko waxee ci indépendant yéen a kaay maître kan keneen ci avocat état a kaay ko moo tax ñun fa ñuy dem ca cassation ndax suñu agence judiciaire de l' état bi li bi dëgg la mooy ne moom attekat bi fa xam rakk ju ñuy El Hadji Sayer Faye mooy seizième adjoint au maire ca mairie bu Ziguinchor info yéene kaay ne leen ak lu mu ci mënti doon daal xàttekat ba moom Sabassy Faye dugalaat na Ousmane Sonko ci liste électorale yi te fi ni fa tàmbali seen parrainage bi ëllëg nag lan la Cour suprême di wax li ci kanam raw li gët ñaar rek a xam de fay dëggal li àttekat bu Ziguinchor wax wala mu neenal ko mel ni ku naan jàppante nag diggante takk der yi ak askan ma ministre ak juróom-ñeent fa ëpp ba jéggi dayo ci gouvernement ci réewum Sénégal waxuma ko Serigne Boub moo ko wax maire bu Kaolack ndangaan bëgg a nekkit candidat 2024 lii yéene kaay ne Serigne Boub daal moom fa xamul ana lan moo tax élection yi des juróomi weer kan moo ci def remaniement soppi ay ministre xanaa njiit réew rek moo ko mën a leeral waaye nee man li ma leer mooy bés bu ñu ma falee ma nekk président bu Sénégal fukki ministre ak juróom benn laa ne ministre d'état la ñuy doon ay manquement turbine yéene kaay na wala démission rek fay mu wëlbatiku ne Karim Wade tamit am na ñaari risque yu koy xaar bokk na ca ngir mu mën a bokk ci wote yi fay fay amande 138 yi Le Soleil yéen kaay moom fa xamal na léegi ñaat téeméer ak fanweer ak ñeent ci ay candidat ci ñu bëgg a nekk candidat moom lañ xam fa bëri ba jéggi dayo ñoom ñëpp de buñ nekkoon candidat mooy ne ñaari weer fa ñuy di wote ba ngoon te du pare waaye xaaral ba parrainage bi pare ci ñoom ñu bëri fa ñuy fori new de turbine Tal ministre de la femme moo dem Kaolack ndangaan financé Jaara Jaw ak jigéen ñam àndal muy jigéen bokk gis-gis ya lu toll fukki million démb lañ doon amal xewte li ni mel turbine yéen a kaay na Jaara Jaw nag fa yëkkati ñaari million yokk ca fukki ya muy fukk ak ñaar lépp ngir taxawu mbootaay soxna ya ànd ak moom ba mu jëlee kàddu nag moom Jaara Jaw fa gërëm ministre de la femme bi nga xam ne fa tëddee njaaxaanaay di financé ñëpp mu xëlbatiku gërëm Pape Diop kilifam ci wàllu politique rafetlu taxawaayam mu xëlbatiku du mit gërëm soxna ya nga xam ne ñoo nekk ca gannaawam di ay jàmbaar moo tax lu mel ni ministre de la femme ràññee leen renforcer leen te loolu yomb ndam lu rëy la ca kanam seeni nawle ya ca kawlax ndàngaan libération moom fañoo ñoo xamal ne ñeenti téeméeru ndaw yu manqué juróom-ñeent di ay sénégalais ñu ngay dund lu métti ca dax la Maroc yaw seetal fañ leen a war a delloo si Sénégal waaye kilifay réewu Maroc fañ leen bàyyi fañoo wax na ñoom joxuñ leen lekk joxuñ leen naan ay duus sax amut fa consul Sénégal ba muy baabu seen sax moo leen di dimbali di leen jox lekk ak naan tàggat yaram coupe d'Afrique bii di ñëw Sénégal xam na ñan la bokk ak te mooy Cameroun Guinée ak Gambie démb lañ doon amal tirage bi ba tax lee si ko yéene kaay ne nag poule bu saf-sàpp la xam ndax ñoo Cameroun choc la waaye Sénégal ak Gambie Guinée ay derby la du yomb de Sadio Mané dëggal ko mais poule bi yomb de stade yéene kaay feelu ko na ko ay choc ak derby rek a ci xam de la xam ca port bu Ndakaaru nag di hab musiba naaru laay yow fa ngay xool fa xam ab bato navire boo xam ne fa explosé kalaate ba fa faa ñaari chinois ay abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir